noo ngi jub noo ngi jublu lu ñuy wax tabaski muy feet yi nga xam ne dañ koy tudd fii ci réew mi benn du ci farata loolu nañ ko xam benn du ci farata korite du farata tabaski du farata yeneen feet yi ci des ma waxaale ma ko lenn du ci farata waaye tey bu tabaski dee jub yow muy góor yaa ngi fas yéene lay wut wala mbasin riis wala cuub wala nangam dara du ci farata ci yow loo ci mënut bul ci gàddu ay bor bul ci dugg ci loo mënut ndax du faral bëgg naan xar mi wut xar nangam junni yàq dong te du farata ci yow jur gàddu yu bor nit la la yàlla jox la nga ca man def ko ci la nga ci tële bàyyi ko bul xool nit ke def na lii war naa koo def kee am na lii war naa ko am bokku ni wërsëg de diiroo ko tonlal mbagg nit day def lu man day wax lu xam dégg nga soxna yi nañu yemale seeni bëgg-bëgg góor ñi it nañu yemale seeni bëgg-bëgg du farata de mbubbum ñaari fukki junni nga bëgg koo sol ci benn bis képp tey gàddu yu bor yu dul jeex amee bor yu dul jeex du farata ci nun ñëpp du ci farata ci kenn mbubb mu set ku ne mën na ko am mbubb mu woyof moo mën a julli jër te du la toggoo yenn toggoo yoo xamante ni la nga cay def am na feneen fu mu xaj ci yow wala nga gàdd bor boo xamante ni ci sam xarum tabaski ragal sa soxna wala nga ragal sa njaboot wala nga ragal nit ñi dara amu ci njariñ yaa koy wéet képp danga ci gis waa joo xamante ni kat fa mu dugg def ay déeba déeba mbuutum xaram boo yeexee sax ma du ko saf dara ndax bu xalaatee bor ba ko cay topp loolu nag amul njariñ ci lu dul farata balay ëllëg mu jàll mel ni lu mu sutoon am nga gàddu ca bor boo xam ne mi ngi fees dell ci sa bopp nga dikk tuddi di ko xalaat borom di la fayoo ko fu nga di fa dugg mën naa dem ba yóbbu la foo xamante ni sax du du fu la gënal ci loo xam du farata nit day xam lay farata ci moom yow julli juróom sax doo ko matale te julli juróom mooy far fardul xay ni kenn mënu koo defal kenn daf laa war julli juróom sax matali ko yow loo xam ne du farata sunna la du lu war ci yawit loo xam dañ ne lii soo ko defut nangam li nga man rek def ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wut na xar moo xamante ni ku amatum xar ku ne ci xeetam wépp yaa tax looy lépp lépp bor boo xamante ni yow dalay sonal la ko fat hmm? lan ngay dajale lii lépp di ko ci def soo amee a pàkk demal nga def ca benn pant boo mën a dëkk mën caa suturlu jóge jóge ci luyaas soo ko amu dajalee loo xam danga da mën a wuti fi béréb boo xam ne dana la mën a teggeel ab yow mi man loolu yi nga xamante ne am nga ko jërut puukarewu yàlla moom bu la joxe xéewal xéewloo ko waaye nag xéewlu gi bul ci ëppal bul ci ëppal xam nga jullit ñoo tane ci ci wet la ngay jënde xarum téeméeri junni mbaa xarum million mën nga caa dimbali fukki jullit mbaa fukki jullit ak juróom ay borom kër fukki borom kër soo soo ko jëlee borom kër gu ne fukki nit ne fa loola daanaka ay téeméeri nit nga ciy dimbali. te nit xiif nga lele ko day daraja ja ca am sunu borom rek ko ko xam.